ma ñëw gérer ko ba bët set incha allah bu ñu paree publier ko ci àdduna bi yëpp ñëpp jot ci. loolu day am yàlla na jàmm ma euh, ma dellusiwaat euh, ci yow rek ji bu ma la laajoon lamb ji ngal këpp kan moo fi dàq bëri kan nga may jox. su ma nee lamb ji wërngal këpp question bi yow bokkoo ci maak yow ñu ngi loos. waaw maak kese ñoo nekk loos. maa waaw ñii ñëpp. mooy loolu ci ci lamb ji lañu bokk. lamb ji kaw ba suuf kan moo fi dàq bëri. lamb boobu sama papa Tafa ngay jógee la dee. waaw waaw waaw kooku waaw kooku bàyyi na. bàyyi na ñi fi nekk kan nga fi gën a naw ci bëri ñi fi nekk ñëpp nag ñëpp ba ci Karbala ci la bokk waaw petit tigre laa gën a naw ci bëri waaw moo dàq bëri ci làmb ji xalaat yi benn la non sama question dafa leer dama ne kan moo gën a bëre Petit Tigre nañ laa moo dàq bëre ci làmb ji Petit Tigre mi toog ah, war na ñafe wadde kon pour le retour taxaw di man moom mën a bëre moom man moom non déet déet mën na bëre fi ko fëgale numéro deux yegg kun ko yegg si làmb ah. pare nga man suñ ma fa yeggoon gëm naa ni booy dañuy suñu waa man dama ko nangu mën a bëre dama ko nangu ñun dañoo yàgg ànd mbapat ak fépp mais yow da ne moo dàq bëre ci làmb ji bor maa Boy Maar nee na Petit Tigre moo dàq bëre ci làmb kon de Petit Tigre kon na ko ñafe waat kon dina ko ñafe waat de kon pour le retour dina ko ñafe waat de ñoom gars yi ñoo am problème ah gars ñoo problème pour le retour de Petit Tigre waaw xam nga tey jii ah, moom du ma ko mooy bëree bëree bëri ñu ngi koy gis fi mu nii uh-huh. dañuy dem di ko laajte chaque jour ñu waxoo ne diw du laaj na la combat ok ndax ni essence yi ni li fi ne la ok mais lépp lu fi nekk lu nekk rek uh-huh. daa am lu ko waral uh-huh. tey jii suñu école bi ñu génnee gars yi école ba léegi mbëri ñun jotuñu woon suñu école sama combat bi nii bi mu taxawee la si gars yi dox ba dox nañ ci ba fi mu toll nii li des bareetul sotti na ba pare xam nga tey ji mbooloo mooy doole tey ji école boo ko yorul miiru kaaba ngay entraîné waaw foofu naan fay fay la ah, lu neex su tey ji bu ma nee Ibra kañ dem entraînement su demul sax hmm. dinaa ko comprendre tey foofu ñuy contacté fi ñu fekk xam nga ne foofu du lieu entraînement fang daj la dañu waxtaan rek. waaw xam nga foofu du lié entraînement. non non mais tey li ñu doon jaayante. Mhm. yàlla mu indi su ko indee. Mhm. mooy gars yi am nañ problème si bët Tigre. kon pour le retour de Petit na gars yi wàcc. xam moom du ma ko mooy keroog dañuy sa jour combat mu xee ma ne ko hee sa waa ji yow noppil rek yow ceenal rek ci ci waxtaan. mënul yem ci 30 minutes. gënuñu ko soxor na ma wóor yàlla ne bu ñu boo duggoon Fass Mbao. Mhm. ku si nekk dañ lay jox qualité bi muy bëri. waaw maanaam taxawee mun naa taxaw ma ne la soo génnee gën a assuré bëri ci Fass Mbao mhm. jëlal jaade jaade waaw ak mën a bëri dama la koy wax ak mën a bëri xam nga loolu xam nga doo koy wax ak mën a bëri la nga ne ñëwaat ma ne la tegal Papis Karbala moom bu la jàppee moom moom bu la feeree moom ba jàppal mhm. fu nga tëdd ngay xool ku weer di laajal maam góor gi Ibos bu la yee nag pare nga ok Ibos moom ci fan yi lay jaar laa ilaaha illallaah ok loolu nga wax Mamor yow nu muy def Mamor non Mamor moom beneen affaire la kooku bii passé ñëpp jàppoon nañ ni sax lamb ji la lamb ji niil na mais booy bi li mu indi ba mu décidé ba mu décidé na lamb ji day jeex dafa jeex xam nga mooy li ma la wax sànq sa sama combat mhm. am na mbër yoo xamante nii dañuy ñëw di la ñeme ñeme lu mais ñemewuñ la soo leen bàyyeeg seen bopp ban ñeme la boo ñëwee da ngay liggéey li nga liggéey Mamor di xam naa ne léegi mu jeexal xale yi man moom loolu leer na ma waaw mais kon léegi yow Fass Mbao lan nga fiy génnee dama ne yow ñëw koo fiy génnee dama la ne laaj laaj naa la question bi waaw nga ne ma Petit Tigre moo dàq bëri ci làmb ji léegi dama lay laajaat juróomi mbër yi dàq bëri ci làmb ji Petit Tigre ak kan juróomi mbër yi dàq bëri ci làmb waaw Abdou Somone laa si teg Petit Tigre Tigre bu Somone waaw ñëwal teg ci Papis Karbala Papis Karbala juróom mbër yi dàq bëri ci làmb ji laa la laaj de tegaat Ibos Ibos Ibos man Ibos mi waaw ñëwal Mamor doomu Fass ñi ñoo dàq bëri ci làmb ji foo koy génn juróomi mbër yi dàq bëri ci làmb ji laa laaj may ma tuuti may ma tuuti may booy booy yow yow yaa yabaate yow ma laaj la juróomi mbër yi dàq bëri ci làmb ji nga jël lépp delloo ko Fass Mbaw war na Serigne Touba damaa xam li ñu am ah? damaa xam li ñu am waaw mais lépp la jël delloo ko Fass Mbaw am laa xam damaa xam li ñu am ñun léegi man tey ñooñu ñëpp ñooñu ñëpp ko benn nga ne nag waaw ah. ah, gis nga voilà qui est clair. waaw ah. kon daal waa Fass Mbaw ñoo dàq bëri ci lamb. waaw léegi tey te man man mii seen poulain la ñu yeewoo ñu yeewoo keppaaru Mbaye Gueye. ndeysaan technicien hors pair. technicien maa ngi fàttaliku bu wofit bu wofit ba mu daanee ci. yow gis bu wofit ba mu daanee. xadara gaa yi naan bu ma dof. non dama lay wax bu wofit. ba mu daan mayutit ba mu daanee treize liir. ko dégg micro mun leen père Mbaye Gueye monde bi moo fi dàq bëri. waaw kon jeex père Mbaye moo da buuba treize nit dafa simeeku hmm. waa Kaolack gi dañ doon wàcc tribune danañ que treize nit da ko ëpp boo compté ñi nga xamante ni ñooy d'origine Fass hmm. ñoo doon ñoo taxaw képp koo xamante ni jàmbur nga bu ñëw di supporté buuba hmm. wàcc nga tribune parce que am dara ci treize nit bi xam nga mafia boo ko waxee nga ne buuba fit kon moom est ce xam nga ni après taxaw na fi juróomi at kenn mënu koo daan waaw déggoo bi ko buuba dajee ñun ñu ngi stade bi mu ngi mel ni Papa Sow bi muy bëree tonnerre ah. dafa sumeeku ñun ñu ngi ci stade bi waa parcelles yi dañ doon wàcc di ñibbi ñun ñu dëkk Fass Mbao ñoo jug taxaw barki Serigne Touba jour boobu ñun ñoo jug taxaw làmb du rëy làmb du loolu billaay wallaay wa taalaay gis nga gars ni ngi leen gisee nii ah, boo leen tiimoon ñuy bëre da naan lii amul tey jii xoolal boo yi nga xamante ni ñoom ngay wax ñooy toj ci làmb ji mhm. du ma si tudd kenn mais xool leen ñoom nin mel seen doy waay ñin na ñooy toj ci làmb ji ponkal yi nee na la léegi boo bëggee ñaari ponkal bu ñuy bëre pariel day niil ñaari dëkk bu ñu taxawee si làmb ji di bëre neel day niil booy bu ñu koy kaw loolu la ñuy wax day niil léegi xoolal benn bët tigër nga indi ko mu leer na ni bu jàppee romb na la bëre day am par force waaw kon léegi koy jinneem yooyu kay moom lay def soit waaw combat am day met ñaaray am waaw combat am day métti soit day daan mu daanu mais combat am day métti da ngay sono ta bopp da ngay jël raakat raakat la soo indee dina la indil bu weñe bi moom raakat ana ana ana jaade jaade ak kii waay jaade ak euh, laay brisli laay brisli daf ma woo laay brisli daf ma woo na ma grand bi ma ko naan mu ne ma jaade lañ ma jox ma ko kooku mu ne ma noo fas mbaaw dëkk école bi bës ma ne ko noo xaw ma ko ñu daje mu ne ma kii laay bëre ma ne ko yow kii Modou Mbaye la fi ma pareegu ma boobu Ibulaay mi ngi ñëw di nga bëree di nga xeex mi ngi boobu mi ngi wax a laay Bruce Lee ne ko nga bëree ma ne ko sama waa ji ñi <laughs> jël seen avance waaw jël seen avance da ngay bëree da ngay xeex lamb ji nan la demee keroog aha da daan waaw loolu mais tey am na loo xamante nii moom mhm. kenn mënu si dara mhm. lamb noonu la arbitre yi des fois dañuy ñëw non dafa am des hauts et des bas sax carrière sportif gis nga un sportif de haut niveau maanaam mbër boo jogee ñëpp ne mbër maa ngi même boo demee daanu daanu waat bul bul weddi say qualité bu bu mu tax nga xeeb sa bopp delluwaatal reculer sa papa Moustapha Gueye mais traversé na fi ay guddi yoo xam ne affaire dafa lëndëm kiris te ñëpp nangu nañ ne bëri ah am nañu ne moo dàq bëri ci arène man damaa ni ah, am nañu ko wax de amul ñu ko wax mënam bëri moom kenn werante wu ko am et na toll ci ay période yoo xam ne affaire yi dafa lëndëm woon kiris loolu dafay am ci carrière sport bala Gaye de taxaw na fi juróomi at daanoon bër eh? ba mu daanee tafaatin kan la daanaat Modou Lo intervalle bi ñaata la voilà kon loolu dafay am des hauts et des bas dafa am ci carrière euh, ma ñëwaat ci yow ci question réponse ba léegi euh, rak ji bëri fit entraînement gàllaaj ban moo ci ëpp solo ci mbër bëri fit entraînement gàllaaj bëri fit entraînement gàllaaj ñeent yi ban moo ci ëpp solo ci mbër waaw mbër de bu amee yar moom ci dëkkam lu mu bëgg dina ko am si la ba tey waxaguma discipline dama ne bëri fit entraînement gàllaaj. entraînement mo gën a lepp lépp. entraînement bo dëgër kët ña ko wala ki c'est clair entraînement boko amé fit ñëw mhm. gàllaaj ñëw mhm. waaw tamit yow looy wëri kon daal entraînement mooy mooy mooy première si mbër kon kon yow boo gisee mbër bu entraîné da nga koy naw barki Seydina Mohamed des fois nga toog stade yow mbër mbër mhm. si meeku nga xool ko xam ne kii liggéey na da ngay kontaan ok yow da ngay bëgg da sentir loolu bilaay da ngay am gis mbër bu entraîné rek da ngay kontaan bëreg sa mbër sax di ko iñaanee mais sa xool di nga xam ne kii tay jii liggéey na daj na lu metti mbër mi nee na ma mbër boo gis mu ceene ne ko ma sa coono waaw loolu dafa am loolu loolu moom. kon daal kon daal entraînement mooy pay. mooy premier waaw léegi yow nga war a bëre ji sa jouru combat. ñu woo la téléphone ne la allo. Boy Maar dafa am règlement bu bees bu wàcc. ñu ne la yow sa bëre. Mm-hmm. sa fit mm-hmm. sa entraînement mm-hmm. ak sa gàllaaj ñeent yi. ñu ne la ñett yi nga yóbbu làmb ja nga bàyyi fi benn wala doo bëri ban ngay bàyyi. ñett yi nga yóbbu. waaw nga bàyyi fi benn bi wala doo bëri. ñett yëpp mën nañ fa toog benn non non non ñoo ñett yi ngay yóbbu ñett yi laa yóbbu sama question ñett yi ngay yóbbu nga bàyyi benn ñett yi laa yóbbu waaw bëree bi fit bi entraînement bi galaaj bi muy yóbbu entraînement waaw sama fit bu wér péng waaw galaaj troisième position quatrième position laa galaaj dama koy bàyyi si kër ga maire ñaanal galaaj ngay bàyyi sama ñoom maam kon bëree bi nga yóbbu fit bi entraînement bi nga bàyyi galaaj gi si kër ga maire ñaanal ma lu tax mënoo bàyyi bëree bi nga ne lu tax mënoo bàyyi bëree laay leela la lamb am na fu muy toll bëri la lamb lañ wax lamb lamb tontu la foofu noonu tontu mag ñi ñun école xam lu ñu doon wax paay baa leen entraînement yi mën bëre rek doole la. mën bëre doole la mën bëre rek doole la parce que boo mënee bëre. Mhm. ki bu jógee mhm. fu mu jëm xam nga fan la jëm. voilà kees la mun bëre rek doole la. loolooy waral contact bi. waaw moo tax mënoo bàyyi bëre bi. du ma ko xalaata bàyyi. mun bëre rek doole la. voilà kees daal laa lay bàyyi tey que sama ñoom maam ñaanal ma. d' kon kon daal doo bàyyi bëre bi. déedéet euh, lu tax mënoo bàyyi entraînement bi. entraînement ah. kooku daa jiitu. moo jiitu. yow man tey su ma amoon entraînement bu ma joxee combat Petit Tigre wala benn Alaaji Mbay day ñëw ne ma eh papa ñu ne ko naam ñu la kii pour lan nga koy jox avance. parce que entraîné wu. waaw yow tamit. lu tax mënoo bàyyi fit bi. lan boobu du judduwaale la. ok laa dañ koy judduwaale. ñun judduwaale moom xam naa ne. kooku du denc nit. voilà kenn. rawatina nga judduwaale fit ba pare nekk foo xamante ni. xale yu ndaw yi sax duñ raf nekk foo xam ne ragal amu fa déedéet xale yu ndaw yi bu ne buñ kay mag ñi ku raf dañ laa war a yóbbu ku taal ba ci ngay bàyyi gàllaaj ma booy sama question leer na sa réponse leer na dama ne question bi leer na bi leer na on avance euh, yow laa wax bi seetaan ba tey ban combat nga dem stade seetaan ko wala nga toog jàkkaarloog télé bi seetaan ko mu marqué la ba mënoo ko fàtte combat bu ma seetaan bi la gën a marqué ci làmb yow dama lay wax ne la gis nga Tapha Gueye bi ko tëj seen dóor bët bi di far jour boobu damaa tëdd nii dëpp sama néeg yaay dina ndeysaan ndax damaa demoon këram mhm. këram laa dem man mhm. maa ko feesal nagu saraxam mhm. ku ne moom laam jooj da koy perte du ma ko gëm mais bët bi mu neewee daa me ni sama bët moo neewi oh. barki xam Muhammad ndax ni ma ko gisee këram ma jóge fa dem ñuy dem estade ma dem ñibbi suñu kër mhm. ñëw toog mhm. bi nga bët bi ma ñibbisee si kër gi mhm. lamb ji ñu tegaat ko RTS bët bi tollaat nii damaa dëppwaat ci lal bi loolu mënu ma ko muñ damaa dëppwaat man boobu la gën a marqué ci lamb dafa ma marqué trop trop ba tey ji billaahi wa taala coow ji bu ba tey ma ma laaj nga tontu en avance mais yow sa wàllu bopp yow bi nga dalee bëree mbapat ba arène ban victoire moo la gën a neex ci sa carrière ban victoire moo la gën a neex sa carrière mbapat ba arène mbapat ba arène waaw victoire boo xam ne ba tey boo ko a neex si arène instant

man nii defet boo xam ne fii la des boo xam ne ba tey mënoo ko fàtte mënu ma ko fàtte boo xam ne ba tey boo xalaatee rek xaw a siis man ban defet la war a doon waaye boo booy man maay laaj man ma lay da damay xam ne loolu noon defet man man sama naar mooma daan ma fat fii waaw

Euh, ma xaw a tout ci tu ji dugg sa vie privée da ngay sétane football. football wa bu baax. ah wa bu <laughs> ok voilà qui qui qui supporter. Barcelone pour Barcelone supporter. les Catalans les Blaugrana. Papa Messi D'accord, Papa Messi. D'accord. Papa Lionel Messi. Légui légui dang may limal 5 joueurs yu Barcelone. ba non non yo nak boko ko sa yone sa Barcelone ay Iniesta ñëwal may ma tuuti rek. may ma tuuti rek nañ ko benn bennal may ma may ma tuuti nañ ko benn bennal sa waay sa yoon nekk ci de. non non ñooñu garaawul sa yoon nekk ci de. non sa yoon nekk ci ndànk rek ndànk rek ndànk fa jaar ba jóge fa jox ko ma Xavi Hernandez n'est-ce bu njëkk ba waaw ah, ñëwal Neymar ak ah. Ronaldo bu Neymar kii ko jox Ronaldo ah. Ronaldo Luiz Nazario eh, bu Brésil jaar na fa 1997 98 waaw ñëwal mais damay seetaan football moom waaw déedéet dig ma Barcelone de oh, oh, dama laaj ban équipe ngay supporter nga ne ma Barcelone léegi Papa Messi ak piégé eh, bul ma fontoo piégé wu ma la ne ba xam da ngay seetaan football nga ne ma bu baax sax non naa la wax ñooñu sa diggante ak yàlla mënoo Rivaldo kii moo ko wax. non non eh, eh, eh, déedéet Ronaldo la ma fi jox ko xam ne moom moo ko xoolal saa waay di la joxaat Romario Romario 1994 la doon joué Barcelone ki judd la. ah dalay yàgg Romario. waaw ah, mais bu ma nee Barcelone la limal naa ko ñoom ñëpp. Nedved jaar na Barça limal naa ko. eh eh Nedved kan man Paul Scholes man. <laughs> eh eh Paul kan la jaar Barcelone. yow tak andi ko kii man Manchester la nekk yaa ngi Manchester de yaa ngi yaa ngi Manchester de naa ma Paul Scholes ban Paul Scholes en tout cas Pape Messi laay supporter ak Barça Barcelone ngay supporter Barça Brésil waaw mais nag war nga mën a xam nag dix joueurs Barcelone wala vingt joueurs Barcelone mais yow la mën a laaj kii moo jàpp ci kii moo kii moo tudd Neymar moo fi tudd Messi Messi kon kay jaral kon laajul kon jaral ma laaj kan mooy sa joueur papa Messi. Ah, voilà réponse bi xam naa ko Messi kay man moom laay supporté. Messi mooy sa joueur àdduna wërngal mais bu jugee Barça fu mu munti dem dinaa ko supporté moom supporté moom dëkk yooyu daal mooy sa joueur. voilà mooy sa joueur. voilà Neymar boole woon naa ko si mais dafa bu xam nga turandoo bi. waaw ba tey ba tey ba tey. Neymar bi ok sa turandoo gis nga ni muy fooyee ci bal. Neymar booy gis nga ni muy fooyee ah? technique bi muy demee ci noonu laay oh technique bi muy demee ci football safara su la jàppee ba def la Neymar safara ya safara yaa moom loolu dégg nga safara yow Neymar gisee bu côté gars yi ndox mu seet la ni kam Mbaye Diop jëlal loolu yaa moom loolu waaw kon jeex na ba tey on avance ci question réponse moom nañ delluwaat Sénégal Papa Messi laa koy def yoro yoro Papa Messi noonu lay def gars yi bal day collé ci tànkam moom damay collé ci kawam rek di ko dóor muy Caatu Rëbës moom moom loolu ah voilà sama gars yi yéen moom loolu ba tey ñu dellusiwaat ci question réponse ah ñu ñëwaat Sénégal kan mooy sa waykat kuy way nga kontaan kuy way ma kontaan waaw ah. essant yi nii waaw ah. baarulum baar baar lu mooy kan non kenn kenn kenn nga may jox kenn. kan mooy sa waykat jox ma kenn da ngay jox Sénégal wërngal këpp am ñaari gox. Sénégal wërngal këpp kan mooy sa waykat Boy Maar non non bu Sénégal wërngal këpp damaa am ñaari gox. waaw kenn nga may jox waykat laa la laaj. laaj gu ma la gox mais damaa am ñaari waykat. non kenn nga may jox kan mooy sa waykat kon xaarim doomu du sekk mooy sa waykat. xaarim xaarim du xaarim du sekk. du yaaykat yi ak a mën a way. kon jeex na comme que bu ma nee ñaari gox nangu lim la may ba mu daanee déggoo ko non non xaarim du sekk dafa mën a way dama am artiste fii baaralu mu ngi fi sama koñ fee Ndoza mu ngi fa bébé Ndoza. Las Palmas mais Xaadim du Seck mooy sa woykat. Xaadim mm, mooy sa woykat. parce que mën na woy. kooku loolu daa jar mais est ce que mën na woy ba woy li papa ji woy. Xaadim papaam bi mu koy yóbbu si si si si làmb mhm. ak lépp boobu ñi ngay dégg ñuy woy ñii yëpp di toj. ci ginnaaw Xaadim lañ toppoon. parce que mën na woy. yàlla nag mooy yàlla mooy def nii doomu aadama. mais xaal li nekk si moom. cat ndeysaan tey jii bu ko fi lii fekkoon politique nee na cat rek. dafa dem fa rek. mais bu ko fi lii mm. yow bu yuuxoo ni ngay waxee dafa mën a way dangay ngay kalew. dafa mën way. waaw ah, kon xam nga man dama yàgg ci làmb. dèjà da ngay dem ba da ngay man papaam. Ah. papaam bu yëkkati woon estat. Ah. sama yaram bi ni lay def. waaw kon jeex na. mais xaadim ci boppam moom mooy yëkkati des fois te bu ci suuf jële ci kaw. nga xam ne kii dafa mën a way. moom mooy sa waykat. ba tey on avance ci question réponse ah euh, mbër kan moy sa comédien préféré ko xamné mëno ko muñ ko xamné bu actionnaire rek nga wacc sama comédien préféré. waaw ko xamné ne Fasma do fi am comédien rek. Fasma fan. fii am na comédien. fi non dafa bari phénomène nak dafa bari phénomène lolu lér na mo mais fi le mom yo ben mo mo nga ma bañ may ben rek. kan moy sa comédien ben sa comédien préféré. ben rek nga ma laaj fii benn kenn Fasma ben non Sénégal wërngal këpp. sa comédien préféré jox ma kenn. fi ci dëkk bi. waaw doo may ñaar baña kenn kenn kenn. kon baa ma jox ko Mbaye Sène mi ànd ak xaadim rek. Mbaye Sène man Mbaye Sène. kuñ Mbaye Sène kooku fu mu toj. Ah, mooy mooy woyal may ma tuuti. happy birthday to you. noonu la koy eh? wooyee. happy birthday nii la koy bu fi ñëwoon tey nga xam ne lépp dëgg la. loolu loolu loolu. yaa ngi ni tiktok tiktok bi xam nañ. gan lu mu tudd. Mbaye Sène Mbaye Sène Mbaye Sène. waaw kon kon mooy loolu dafa neex. ah bu la fi fekkoon nga bu dolli. oh wala kii Pape Ndiaye naturellement borom doxoo ba surtout maam waa doxoo ba yëpp maa ngi leen di nuyu waaw waaw njaga njaga jaajëf njaga ñun ñii lañu am njaga maa lay bëgg ndeysaan barki Seydina Mohamed jaajëf wàccal wàccal wàccal wàccal wàccal wàccal toogal toogal si barki Alaaji Soose Njaay sama maam amin kay si kàttanu yàlla suñu borom mhm. billahi wallahi gars buy suulee seen tànk yi mhm. barki Seydina Mohamed dañu am droit de dara ndeysaan alxuraan kay ndax akoo tax xol lay waxee nit ba pare mhm. maanaam nga siy sentir sa bopp quoi. barki mhm. Seydina moom jëg yëg li nga doomu aadama bu la yëgee rek yëg ko gars yi nii nekk fii yëpp nag noonu la ko demee xeebu ñu kenn nit kuy def lii wala kuy def wala mhm. si nekk li xam nga ah, euh, waaw noonu la demee waaw moom c'est un joueur non dafa bëri phénomène nee naa la Fass Mbaw dafa bëri phénomène si karkat bi ñëw na fi léegi tu vois si karkat beneen phénomène. dañoo am lépp. beneen phénomène. waaw waaw maa ngi lay. mooy maa nga leen sànni karabaas yi. daan nga leen jël bu nu dootul miim Ibra Mbaye mooy sa baay. Pape Gueye doj mooy sa baay. boo yem boo bëree da ngaa war a bëree booy maan. ak <laughs> non fii lu nekk fii lu nekk fii lu nekk fii soo bàyyi ko bàyyi ko garaawul garaawul. waaw. liggéey na jur doom fu laa fay da boppam. maaroo. yi maar bu ragaloo sa yaay daal liggéey ca kër baay. kor yoo ne lee ñaani ka ñaan ko ñaan ay waay say doomu nda yaa ngi nii. bay maar bu ragaloo bul tiit bul xeef. bàyyi leen seen yaa ba jiite laale laale muy baax bu góor muy bu doon laale muy jigéen mooy seet bi bëri nay phénomène bëri nay phénomène macha allah non non non non dina gën a yaatu dina gën a yaatu dina gën a non dina gën a yaatu wàccal wàccal wàccal wàccal yaa nga am champion bu ñu waxantee dëgg rek mm-hmm. Fass mm-hmm. moo tax ku nekk ubbi école naan ay école ak dëgg yeeg yooyu noonu mm-hmm. Fass ñooy université seul contre tous Fass mbaaw booy maar yii nii ay petit tigre xam nga ay Bouba Fit ay Papis Karbala ay Mamadou Mbaye xam nga ñooñu ñun moom lañ am ay champion lañ ay ndaanaan lañ nit bu la joxee cër dafa neex mhm. xam nga moomuñu kenn dañoo bàyyi suñu temps gis nga ni ma jógee cag-cag laa yor cag-cag dem naa livré li ma livré ñëwaat cag-cag am parce que booy maa non day gën a yaatu day gën a yaatu day gën a yaatu dama dajee kaay sa waaye keroog mu ne ma yow fii nga bokk mais am solo jàmm am solo tey bi ma jëlee sama temps ñëw jekku waa ji bul soloon sa bopp damay jël beneen jour ñëw jàkkaarloo petit tigre dina gën a yaatu incha allah dans la jàmm rek waaw waaw lépp la dinañ la man naa defar tiset lo seen lo décoré ko nag si xola alay faas yàlla yàlla na jàmm yàgg incha allah dina gën a yaatu dina gën a yaatu dina gën a yaatu waaw waaw ba tey ba tey eh, rakk ji ñu delluwaat ba léegi ci question réponse ah eh, benn instant dama naan question de coob lan mooy sa plat préféré plat préféré loo xam ne tey boo ko tegoon fii tey ku ne salaamaaleykum nga ne ko noonu xaaral ma pare Ah, kay ganit daal moom ah, voilà daa mel ah, waaw mën na biiru mais yoo leel sa bopp rek fan si yeeg supporter nañu xam ne booy ma fils de Ibrahima Mbaye lii mooy plat préféré bu ko defee ku la invité préparé la ko non